sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad mbokki Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalaat eh, jamono ji nag question yëpp mooy lan ci wàllu foroote bi foroote bi nga xamee ne eh, mooy foroote bi nga xam ne saa buñ la ko jaayee dañ la koy garanti la garanti bi moom mooy lan yépp loo xam ne ne wàllu gént la gént yu doy waar yi wala gént yu ñàng yi farata bi une semaine nga koy laal lépp luy jinne jinne boo xam ne ne euh, dafay yàq say mbir wala day yàq sa yaram wala dangay fanaanee gént bi sëy boo jëlee farata bi dafay dañ ba mu set tànk yuy metti yax yu ruux ndigg luy metti neer yuy metti tànk mm, farata bi daf koy faj te farata bi li tax mu xaw a doy waar mooy sarax bi nga xam ne ne moom la àndal muy saraxu rawxaan bi nga xam ne boo xasee ba génnee euh, sarax bi lépp loo xam ne da ko doon jàmbat si sa wàllu yaram wala sa wërsëg euh, tagoon nga xam ne ni wàllu jinne yi ñoom ñoo ko def wala cat foroote bi dafa koy dindi ba mu set moo tax ñu bari dañuy wax danoo nekk Côte d'Ivoire danoo nekk foo mën a nekk ci réew mi mën na la ko defa ci CP wala DHL yëpp nga mën see jot waaye bu fekkee fii ci réew mi am na Parcelles am na Colobane Euh, Touba am na fa fépp foo nekk rek mën la ko yónnee ba nga jot si boo wootee si numéro yooyu euh, te Cheikh Ibra rek moom moo koy joxe muy foroote bi Cheikh Ibra ak ñi nga xam ne ne ñooy ay ndawam ñi nga xam ne ñoom lay yónni euh, nga jot si ndax foroote bi kenn defaru ko ku man pour muy leer foroote bi man rek man maa koy defar te lépp loo xam ne ne mbiru baatin la ndax li mu faj lépp dafa bari muy frotté bi da koy laal tey gis ko tey moo tax frotté bi def gis lan ko tuddee da laal lépp lu nekkoon ci sa wàllu yaram dañ anti cat rab yaakaar bi tas may forote bi nga xam ne ne frotté bu doy waar bi saa boo wootee ci numéro yooyu rek da nga jot eh, ñi nga xam ne ne ñoom ñoo yor frotté bi incha allahu rabbi kon ñi ngi fii ci Fass Colobane ñi Kër Euh, Médina fépp foo dem rek foroote bi am na fa jërë ngeen jëf ba yeneeni jamono